salut les internautes de bët set ñu amati mbégte ak contentement bu baax daal di ànd ak yéen fa yéene waxtaanee wàllum actualité bi nga xamante ni nag moo laal wàllum foncier bu fekkente ni état du Sénégal daal di nañuy jàpp ne corniche ouest ak corniche est yépp daal di nañu koy jaay saa si le tembe nag fii ci diwaanu Gueule Tapée am na famille boo xamante ni jaay nañu leen doole ba nangu seen kër buñ ca yamoon sax famille ba deseeg seeni rongañ tey jooy waaye jël nañu seen wayjur bu góor daal di koy dugal ci kaso bi nak ba doomam daal di fi teew fa seeni ñaa indil ay leeral ci mbir moo ne ana lan moo ko undu maa ngi lay nuyu sëñ bi. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Boubacar Gningue. Boubacar tey nga daal di nekk ab victime boo xamante ni jaay nañ la doole. nangu seenub kër jël sa way jur daal di koy denc ci kaso bi ñu bëggoon rek nga daal di dellu siwaat ci mbir mi ana naka la dooree. waaw waaw ni mu dooree mooy euh, boroom kër gi mooy sama maam Ablaye Gningue la tudd moom moo jur ki ñu dugal si kaso bi nii muy Ibra nga moom mooy sam pap waaw mais mbir mi daal ni ma ko gisee jaayum doole la parce que kër la ay nit bokk ko mais papam dafa am lu mu ko ci may mu nekk may boo xamante ne nag lu wér la parce que am na kayit am na ay témoins et signataires yeeg yëpp a ngi fi kayit gi légalisé nañ ko jaar na fi mu war a jaar yëpp ñoom bañuñu loolu d'accord nañu loolu gëm nañ ne seen papa moo def loolu te bi mu koy def tamit wax na leen ko. kon loolu du problème bi mais problème bi mooy sama papa dafa am ay sëram yoo xam te dañu amoon part ci kër gi bi ñu miraasee ñu jox sëram yooyu seen part ak li mu am biñ ko boolee moo xay ma genn wàllu kër gi mu tolloog genn wàllu kër gi ñoom ñu moom 150 mètres ñun ñu moom 150 mètres ñoom ñu dagg kër gi ñoo ko defal seen bopp suñu doomu bàyyi papa yi miire ko ñoom ñu dëkkee ne ñun ñu dëkkee nii mais ñoom dëkkuñu si kër gi dañu luwee woon seen parti chaque fin de mois ñu ñëw jël seen luyaas dem ñun ñu nekk suñu côté amul benn problème mais kayitu kër gi original bi ñun ñoo ko yor ñoom yoruñu kayit mais ci biir loolu ñoom ñu xëy benn jour ñëw déclaré sama papa ne dañu bëgg jaay sama papa ne leen xanaa li ngeen moom ngeen di jaay mais lii ñun jaayuñu ko parce que si lu ñu amuñu feneen fu ñu dem comme ñoom am nañu yeneen i kër am nañu droit jaay sama ne leen moom jaayul ci biir loolu ñoom ñu d'accord ne ñoom seen parti la ñuy jaay na leen seen papa sama papa defaral benn photocopie ci kayit original bi ñu mën ko présenter ki ñuy jaay ñoom ñu am photocopie bi bi ñu amee photocopie bi ñu ñu téye original bi euh, dañu xëy daal benn jour ki ñu jaay ñëw kër ga ñëw xamal nañu ne kër gi dañ ko jaay sama baab ne leen yëgoon naa ne dañuy jaayee mais parti bële la ñuy jaayee bi sama parti la man maa ko moom waaje ne lépp lañu ko jaay ne ñun dañu war a fay luyaas wala ñu génn ñun ñu bañ ne ñu fay luyaas parce que kër gi mu nekk suñu kër ba pare ñuy fay luyaas ba ñu ñëwee ne leen da ngeen di fay lu yaas est-ce que indil nañ leen benn papier boo xamante ni dinañ leen wax ne leen temps bii ngeen war a fay ci ay koppar durant bi ngeen ci dëkkee ak léegi. non loolu musul am musuñu ñu indil kayit ay wax la woon nii rek day ñëw wax ak ñun ñun ñu tontu leen après ñoom ñu dem léegi moom bi mu waxee loolu ñun ñu bañ comme que ñun yëg nañu loolu ñun tam ñu dem uti avocat mu mu saytul ñu lan moo waral jaay bi ak loolu mais suñu avocat daf ñu xamal ne kër gi yëpp la ñu jaay. te tribunal moo ko jaayee ñun loolu loolu lañ suñu avocat xamal léegi ñun tamit ñuy gëstu si yan condition la ko tribunal jaayee mais si li ñu avocat bi expliqué nee na euh, juge bi def ko xamal ne famille bu ñu jubóowulee ci kër am nañu droit jaay kër gi ku nekk ñu jox la li ci am nga dem mais loolu dëgg la mën na nekk lu waaye mën nañ ko d'accord mais buñ bu fekkee famille boo xamante ne nii jubóowuñu si li ñu bokk mais famille bu séddoo ba pare ba ku nekk xam li nga moom ba ñu miire ko ba séparation am kon benn kayit moo leen liyee kon kayit kese moo leen liyee dootul dëkkuwaay waaw kon loolu du ñàkk juboo tribunal ñëw na daal di àtte jaay kër gi kër gi ñu bëggoon a xam tribunal ba mu ko jaayee ñaata la ko jaayee. waaw li ñu gis ci papier yi mooy kër gi nee nañ 40 millions la jar. kër gi ñaata mètre carré la. 300 mètre carré waaw 300 mètre carré. ngeen dëkk ci 150 beneen famille bi dëkk ci 150 mètre carré kër gi bu ñu ko estimé tey ci ay koppar. koppar gi buñ ko ci estimé ci cent mètres carrés xayma bi est-ce que dina àgg ci quarante million wala dina ko dépassé te mu nekkee ci diwaanu Gueule Tapée waaw kër gi mu ngi si corniche bi Fanok te ku ku ne xam na këru Fanok mënul jar loolu même même cent mètres carrés bi sax mënul jar même bu dee pàkk pàkk kese mënul jar 40 millions waaw kon déjà rek prix bi am na problème waaw prix bi jaarul yoon waaw loolu euh, ñoom bu ñu nee seen moitié la ñu jaay loolu ñun mën nañ ko gëm. mais waa ji dafa ne jaayoo ñu ko moitié bi lépp lañ ko jaay fas yéene ñu génne indi ay ay GMM bëgg ñu génne ñu opposé wu bañ ne du ñu génn parce que suñu kër la tamit te bu fekkee ne jaay bi am na comme ñoom ni ñu ko waxee mais xanaa dinañ ñu ne seen xaalis a ngi nii ñun gisuñu xaalis kenn joxuñu xaalis amul benn signature bu jóge si suñu famille dem ci ñoom bu wane ni ñun d'accord nañ ne dañuy jaay ñun jaayuñu parce que loolu lañu am duñu ko jaay waaw amuñ suñu signature joxuñu ñu suñu xaalis. ñun daal li ñu am mooy génn leen te lii may wax nii bu fekkee nit dafi am lu muy xel ñaar am nañu chef de quartier xam na histoire kër gi chef de bi. naka la tudd mbir mi ba mu dooree moom ban moo ci doon koon ab taxawaayam. waaw chef de bi taxaw na ci taxaw bu rafet parce que suñu maam xaritam la woon ñun suñu chef de quartier du xale am na 105 ans ñu koy wax Paa jiite képp ku nekk fan xam nga ko te ba léegi mu ngi liggéey liggéeyam yàlla moo ko defal loolu. voilà moom naaxul te xam na li muy wax xamal nañu carrément ne may bi dëgg la moom da ko témoin fekkee na ko xamal nañu carrément personnalité bi suñu maam amoon ak ba mu koy def yenn condition la ko defee woon ba si commissaire point 1 bi toog na ak moom mu expliqué ko carrément ne ko ñii fi ñu dëkk ñoo ko moom def leen attention ci affaire bi waaw alerté na leen ba tàyyi wax na leen dëgg bi yëpp te nit ki mënoo jaay këram joxuloo ko xaalisam joxuloo ko dara nga bëgg ko génne dégg naa nag ñu euh, commissaire bi benn jour entendre na entendre na ma di ma expliquer na ma dégg na ne moolu sumbu jun yi dañu dugg ci coow li waaw ma ne ko moolu sumbu jun yi ñun woowuñu leen ñun suñuy mbokk lañu sama papa pêcheur la woon nekk lu yor gaalam di dem géej ci sumbu jun ñoom waa sumbu jun suñu histoire kër ñoom ñoo ma ko gën a xam parce que sama papa dafa am ay nit yu mu fa maaseel ñu daan yeewoo suñu biir kër ñenn ñi dëkk suñu biir kër xam histoire bi yëpp mu demee loolu moo tax ñoom ñu opposé wu ne ñu ngi suñu ginnaaw bañu ñu ci dara bés bu policiers yi ñëwee fii dinañ ko jaayante ñoom ba mu saf ñoom ñoo wax loolu. léegi police ba mu ñëwee huissier daal di ñëw ñu ñëw daal di ne dañ leen di génnee ci kër gi moo li daal di ciy opposé wu mbir ma fan la teeri jee waaw fi mu teeri mooy Pape Diop moo mujj a def alerte président Pape Diop boobu moo nekk maire de Dakar nekk président assemblée parce que problème kër gi du tey 2010 la woon. voilà moom moom comme que miinante nañu te moom fi la nekk si diwaanu Soumbédioune xam nañu moo ñu yar moo ma woo téléphone direct ne ma lan moo xew Gueule Tapée parce que boobu corniche bi dañ ko baare oto yi dematuñ mu woo ma laaj ma ne ma lan moo xew ma explique ko li xew ma ne ko suñu kër dañu bëgg a génne mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne ma jox ma commissaire bi ma jox ko commissaire bi moom moo leen wax ñu bàyyi bi mu waxee ñu bàyyi ay 4 heures Pape Diop ma këram ne ma ma ñëw fekk ko këram ma dem këram ñu toog waxtaan ma explique ko problème bi yëpp nu mu deme waaw moom mu xamal ma ne daal homme politique la njaaxanaay lay tëddee. amul fu muy far amul kenn ku mu xamante ne nii da koy faral lii dëgg daal lay def na ma teg leen seen mbir si yoon ngeen dem ci avocat yi ngeen waxtaan waaw bi mu waxee loolu man tamit ma dem uti avocat waaw mu boole ma benn avocat boo xamante ne nee na ma boo demee ci moom daal bu ngeen waxtaan dina la tegal mbir mi ci yoon ma dem ci kooku waaw Maître Khassim Touré moom la ma boole loon mais loolu mujjul am suite parce que dama dem ba benn moment ma ma gis ko du yomb mënatuma am ci moom résultat après cela bàyyiwaat Xaasim Touré dem uti avocat yi nga xamante ne ñoo tollox man. tey avocat yi nga dem ut loolee lépp jëm ci wàllub yoon jëm ci wàllum këyit yor nga say këyit mu daal di leer naññi kër gi tamit sa jur bu góor moo ko moom mais coow li ana naka la judduwaatee ba ñu yëkkati sa papa tey daal di koy teg ca diiwaanu Rëbës ak lan moo ko fa teg. waaw li loolu li tax mu am mooy ñoom dañu def descente kër gi ay yoon yoon xam nga histoire. bu lu war a mat cinq camions gémi yabee ay gémi ba fees ñëw ci benn kër pour génne leen te génn boobu mënul nekk nga xam ne ñi opposé wu bari na waaw parce que ñun dañu nekk ay boroomi mbokk nekk lébu juddoo fii nekk ay mool ñun mool dinañ jëkki saa di jàppante suñu biir du ñàkk mais bu keneen jógee si àll ba ñëw laal leen ñëpp dañuy dal sa kaw loolu yàlla moo ñu ko bindee ñun noonu la ñu mel surtout koy jaay doole nit bu defee safaan def na ko su dul noonu jël alalu jàmbur wala mu mu def safaan rey nit wala yu mel noonu moo li du ñu opposé wu parce que dañuy xam ne dafa tooñ bu boobaa dañuy bàyyi yoon def liggéeyam mais bu fekkee ñun dañu nekk mool suñu mbokk mool ñu koy néewal doole ak fi jamono tollu tey ñun suñu bakkan lañ fiy teg mool moo mel noonu loolu moo tax ñoom ñu opposé wu ne du fi am parce que xam nañ li xew bu fekkoon ne Ibra ñi nga nekkul ci dëgg wala papam mayu ko loolu wala du doomam wala bokkul ci famille yi ñoom dañ si neutre seen yoon du si nekk mais xam nañ ne Ablaye Ñinga moo jur Ibra Ñinga nekk ak moom fii si Soumbédioune doomam liggéeyal ko sonn ci moom ba te loolu boo leen si bëggoon am lu leen leeral dem leen Soumbédioune jarul sax ngeen di ngeen def seen micro trottoir rek ko leen dajal ngeen laaj ko moom dina leen expliquer carrément nu mu demee ñoom ñoo ñu gën a xam histoire bi seen bakkan ne du am. kon léegi ci boobu nga xamante ne amoon na seen diggante ak force de l'ordre yi buñ la déggee bu baax looloo waral ñu daal di yëkkati sa papa daal di koy yóbbu. waaw ñoom bi ñu koy jàpp jëlewuñu ko ci kër gi joxuñu ko convocation fekkuñu ko këram moom liggéey na ba wàcc am na beneen soxna bu nekk fas Mbao mu taal scooter am di ñibbi ñu koj ko ci yoon bi policiers yi koj ko ci yoon bi yàpp ci oto bi. ban police ñoo ko ci yoon bi daal di koy yàpp. police point la waaw ñun sax yëguñu ko woon mais sama benn xarit moo nekkoon kusum di entraînement mooy si suuf si foofu moom moo gis ñu koj ko foofu jàpp ko yéegal ko ci oto bi yóbbu ko après man. mu ñëw fekk ma fii expliqué ma ko mais bi ma koy wax boobu presque sept heures ci ngoon jour vendredi la woon sept heures ci ngoon naaj na si laa daw dem kër chef de quartier bi expliqué ko mu ne ma demal police ma jubali police bi may dugg ci police bi laay dajeek oto bi muy génn ma dugg commandant bi ne ma mu ngi noonu ñuy yóbbu 100 mètres jàllale nañ ko. kon su ma la déggee bu baax mbir mi dafa mel ni mbirum jaay doole typiquement la ba ngay arrêté nit ki yaa ngi ko fekk ci yoon du plainte du dara nga daal di koy patam patamee daal di yóbbu. mu tombé vendredi à partir de 17h ba ñu jëlee góor gi à partir de 17h vendredi daal di koy yóbbu police point E à l'instant T la ñu ko jëlaat daal di koy yóbbu fa nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Rëbës te bu fekkente ni vendredi la transfert war a am lundi matin lañ ko war a def à partir de 8h mbir moomu teeyul xel. waaw tey na xel mooy li may wax rek wax naa ko ci début bi jaay doole la te comme que ñun xëy na xaw nañu néew doole te ñu dajeel tamit bu dee dëgg rek moo tax moo neex yàlla. moo ñëpp doole parce que borom xaalis la xëy na am na connaissance ci réew mi wala mu xamanteek ñoo xamante ne am nañ joole ci réew mi mais ñun gis nañ ne daal jaay doole la li tax ñu ñëw fii di jooytu loolu moo ko waral. moment bi nga gisee sa papa ñu koy yóbbu moment boobu noo def. waaw gisuma ko non bu ma ko gisoon du dem wala ñu boole ma ci bu ma ko gisoon du dem wala ñu boole ma ci waaw mais gisuma ko dañ ko yóbbu ba pare nit moo ma ko wax ne ma sa papa dañ ko jàpp fu lay yóbbu ko mu daw ñëw wax ma ko man bu ma demoon police fekk fa sama papa. duñ ko yóbbu wala dañ ma rey waaw. sa papa boobu ak léegi mu def ñaata at ci kaso bi. waaw def na 4 mois yu teg ay jours parce que avant koor gi la woon def na 4 mois yu teg ay jour boobu ba léegi ñu ngi def ay jéego tribunal wut ay avocat mais avocat yu ñu wut ñi si ëpp li ñu lay wax mooy euh, dossier bi maîtriser wuñu ko dafa yàgg. ay ay ay laajte la ñuy def ak yooyu kenn daal laa xam ne wax nañu ci lu xaw wóor lu leer mooy maître kan waaw moom moo débuté woon dossier bi mais demoon nañ ba benn moment ñu jëlaat ko dossier bi tegaat ko si loxo keneen waaw léegi si jamono bu néew fan yii rek la jotaat dossier bi moom mooñ ci wax daal lu leer mu ne sama papa dañ ko téye contrainte par corps waaw contrainte. contrainte par corps ci góor goo xamante ne am na ñaata ci ay at. sama papa mu ngi se si 72 ans. 1948 la jotu kon ñoom déjà rek fi violé nañu loi waaw loolu ma koy wax ñëpp ñu koy dégg noonu lañ ko téye 72 ans la am ñu téye ko contrainte par corps te contrainte par bi jaarul yoon contrainte par corps nit bu la ameel xaalis nga koy téye. mais du nit koo xamante dafa dëkk ci këram nga bëgg ko fay loolu yaas mu bañ nga xayma bi nga ko jëndee ak léegi temps bi mu def nga ne moom la lay fay te moom këram yow mi ko jënd. est que mën ngaa ñëw ci njëg li nga xamante ni ñoom nee nañ moom nga leen di fay xaalis boobee nga xamante ne ñu ngay wax ne da ngeen leen kaa yoreel ci kër goo xamante ni yéen a ko moom ñaata la ci ay millions. waaw ñoom nee nañ contrainte par corps bi 2 millions la nee nañ li li ko góor gi amel ak ak ak léegi 2 millions la pour ñun ñu fay ko waaw te ñun tamit euh, mënuñu fay loo xamante ne nii suñu kër la wax dëgg yàlla nit yaakaar naa ni loolu lebul doo ko fay ci waxtu bi nga xamante ne nag ñoo ngi wax ak yéen paa boo xamante ni am na 72 ans tey jël nañ ko daal di koy teg fa nga xamante ni moo di ca diwaanu Rëbës ci kër goo xamante ni moo ko moom way juróom bu góor daal di ko koy may lépp daal di nekk ab jaayub doole waral na ba doomam daal di ñëw di interpeller ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les autorités compétentes mi war a jóg wax ci mbir mi ngir ñu daal di ciy am akub solution fi ñu toll ci atum 2020 wàllum foncier di wëy di jur akub coow waral na nag état du Sénégal ca ba muy def prestation de serment wam ginnaaw ba mu faloo ci ñaareelu mandat wam daal xam xamle ni rek ne année bilee dina xeex lépp lu jëm ci wàllum foncier rawatina ci wàllum dëkkuwaay yi beneen dossier moo ngi nii amee sug yaakaar rek que dinañ ci am akub solution ñu bëggoon a xam paa bi saa sile tembe mag la naka lay dundee ci biir prison bi. waaw ñun depuis ñu téye ko ba léegi gisante wuñu parce que. lan moo tax leen kaa gis. li tax mënuñu ko gis mooy dañoo xamal ne Covid 19 bi visite du am visite amul. Euh, amuñu droit yóbbul ko lekk amuñu droit yóbbul ko dara ñu bët mais souvent daf may woo ba tey jii avant may ñëw di def émission bi déggante nañu woo na waaw mais moom li mu may wax benn wax bi rek la ma nekk fii bu mu tax ngeen bàyyi sama alal la na leen jaral lu ne fi mu nekk mu ngay xamle ne alalam la dem ba tëdd kaso di wax say doom ne leen bu leen bàyyi sama alal la yaakaar naa ne alal boobu boo ko moomu toon ba tey daal di nga ciy deltu ginnaaw kon nit ki la mu moom mu daal di sax ci xolam nañ ko bàyyee nag ak moom ci réewum Sénégal bu fekkente ni état de droit la ñu nekk ci état boo xamante ni justice bi dafa indépendante nañ ko bàyyi ak li nga xamante ni moom moo di alalam metti na waaye ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin ginnaaw bi nga xamante ne nag yaa ngi sàkku ngir ñu daal di jox sa wayjur boobee këyitu këram ak këram daal di koy joxaat li nga xamante ni moom moo di liberté am waaw sama dernier kàddu moom maa ngi def maa ngi ma leen di gërëm yéen ñi ma invité ba may wax si li ñu def sama pap waaw di gërëm sama xarit bi ma boole ak yow waaw di gërëm nag waa Soumbédioune parce que bu dul woon ñoom xëy na mënuma toog fii di wax heure bi kon génn nañu kër gi yàgg na parce que du tey may gërëm waa Soumbédioune yëpp sama xarit yeeg sama xaritu papa yeeg ñoom ñëpp ma leen di gërëm benn message rek lay lancé li ma waxoon rek lay waxaat kër gi bu ñu ko naree jël sama bakkan la ñuy jaar ak sama famille yëpp parce que du ñu bàyyi waaw ki ko jënd na ko xam ak lu mën a xew suñu bakkan la jaar. ba léegi police yi poli euh, police point un ñu ngi ñëw ci kër gi di ñu indil ay kayit da ngeen war a génn walla loolu mais yooyu taxul ñuy wax ñun ñu ngi toog di leen déglu bés bu ñu fi ñëwee lépp lu ñu bëgg dañ ci dem waaw mais du ñu génn.